mi ngi ci internet man naa ko yëg démb ndax dama génn sama soxna fa lay liggéeyee laata ñuy agsi fii fekk na moom yëgoon nañ ko ndax hôpital la ñuy jëkk a informé pour ñu jël ay disposition ci malade yi waaye ci ñi nga xam ni seen bakkan des na ca bi ma woowee wax ma ko ñu xam ni dañu war a fàggu ji glace ndax nombre de morts yi ñu waxoon ragal naa ne amuñu lu ni toll ci ay casier ci morgu hôpital bi doonte ginnaaw bi yaakaar naa ne am na beneen xalaat buñ ci amoon mooy ñu seet morgue gi jàkka yi nga xam ni ñoom ñoo jege bu ñu defee constat bi ba pare jëm fa évacuer yenn déchets yi moo gën di jëli glace gi di tooyal foofa te xëy na nañ ko bëgg a def du ni mel ci condition ya gën waaye teewul man yóbbu naa fa glace maa ngi santi ci mbokk yi nga xam ni ñoom ñenn ji dañ ma ko jox gratuitement ñi ci des dañ ko jaay waaye lépp yem na jaay beeg joxe bi bu ci nekk rek sant ba nga xamee ne loola disponible na muy jëye ju jéggi dayooti ju jéggi dayooti ministre bi ñëw na fa autorité yi nga xam ni ñoo ŋànk dëkk bi ñëpp teew nañ fa mbokk yi ñi nga xam ni ñoo dawlu ak ñi blessé man ba ma àggee buggumaa dugg ca biir urgence ba buggumaa dem ca morgue ba parce que man am na loo xam ne sama bët mënu ko gis nettali biñ ma koy nettali rek xajul ci man sama sama yàlla noonu la ma bindee noonu la ma suñu borom bindee mënumaa xool lu metti mënuma ko dégg kon mu won la ne ba tey Sénégal wéraguñu lu jiitu bato la jëye yu nekk am na fi nag xanaa kay booba moom dafay njambaxtal la waaye lu ko jiitu jëye ju ne am na ñaari fan ñetti fan lañ koy naqarlu doo dégg ñu tudd ci ku ñu sanctionné doo dégg ku ñu kuñ ci topp ay nit dee ay nit dam ay nit yàqu àddina ak àllaaxira seen seen dund yépp yàqu te li leen koy indil mooy càggantey doomu aadama càggantey doomu aadama seetaan bay bayal mesure de sécurité moom la tubaab gën a fonk lépp lu tubaab di def moo ci jiitu dem naa ci mécanicien mu may defaral cric oto bi ba mu jóg ba taxaw muy bëgg a dugg ma ne ko déet kaay taxawal wutal loo dugal ci suufu oto bi bu cric bi rëccee loola dal ci kam ca kawam mu ne ma noonu kii yàggul ma ne ko yàgg ak gudd jege ci yem su fekkee amoo ko da ngay doo doo dugg mu daal ne ma per nanga ma ne ko am na lu gën a yomb loolu mécanicien yaa ngi fi ne xus du jeex du xaaj soo ma munta defaral ci nii ma bëggee ma dem ci keneen waaye sécurité bi moom mooy jiitu kenn du ma may mbamb ci sama oto bu ma lu dañ kirig ba dugg na ci biir oto ba rëcc na ma ne ko lii mooy mën a nekk dama ko seetee xam ne loolaay dëgg mu defaral ma ko na ma ko bëggee te kooku bu ma ko tegoon seetaan waxuma oto bi kilij bi rëcc mais imagineel nit mën na ñëw rek dal ci oto bi mu yëngatu beneen obstacle mën na jóge fee dal ci oto bi yëngal ko kirij ba rëcc bu rëccee su ko fekkee ci suuf àddina tukki ñoo gi seen oto yii ci àll jëm ci àll yi dëgg la amuñu lu leen yóbbu parce que benn horaire a fay nekk waaye xoola oto boo xam ne bii ay nit ñooy toog ci kaw fii am na benn xale boo xam ne bii mbokkam moo ma woo ñu évacuer ko ci hôpital bi oto ba ñu duggoon oto àll yi dañu teg nekk ca kaw ba oto ba vire ca virage ba daf leen a yebbi ba pare bërëngu fekk si leen daf leen a yebbi ñu nekkoon ca kaw ñu daanu oto bi def tono fekk si leen loolu ñaata kaa du jeex du xaaj ci réew mi oto dugg troisième position maanaam man su may dawal noonu laay def damay mel na ku toog ci nen maa ngi xool tëli maa ngi concentré wu maa ngi xool ndeyjoor xool càmmoñ rétroviseur yi di xool am na ci situation boobu dawal naa ko dawal yoo xam ni léeg-léeg damay ubbi sama vitre génnee sama loxo génnee sama loxo baatar ko ndànk di dimbali kiy ñëw taal sama vitesse de euh, euh, euh, lumière détresse feu de détresse lañ koy wax parce que loolu lépp ci dawal bi la bokk yow bëgg a mucc bëgg keneen it mucc ci yow parce que tey ku nekkoon troisième position di doubler tolloog yow yow moom soo moytuwul boo ko mayul mu dem wala nga jéem a daw gaaw wut foo dem bee di ñëw bu defeek moom frontal doo ca mucc walla booba mën na koy jéem a moytu sax faf ak si sa kaw te loolu lépp li ko indi mooy indiscipline te li bii may jël jëm ca dëkk ba soo ñëwee ba ci intersection bi fi nga xam ni foofu la ko tëli ñu talib sëñ baara dagge da ngay gis ku ñëw ba ci bopp koñ bi war tafu tafu droitam signalé buy jëm gauche oto bi jóge gare su ñëwee jël droitam moom itam nga gis ko mu droité moom fi nga xam ne oto bi jógee kër sëñ euh, garage gare su ñëwee foofu la war a jaar yow boo jugee dëkk ba dangaa war a ñëw moom itam kuppe ko jaar moom ci ci ci ci ci gauche mais day ñëw rek xelam lay topp dafa bëgg a jàdd xel mi mooy jàdd oto bi jàddul nga xam ne day saboter circulation bi complètement mën fa ay indi ay jéyeeg bés bu nekk nag te loolu lépp permis de conduire nga jox ko illettré koo xam ne kii jàngul xamul lu xew kon permis yi war nañu xool condition yiñ koy joxe nit ñi léegi mu dem jàng ko bu baax a baax a baax a baax boole kook ñu am nag retrait de permis ak repassage code de la route ak permis de conduire bi lépp intégralement ñu def kon permis à point kooku urgence la ci liggéey bi urgence absolue permis à point boole ko contravention yi ñu jëlee ko trois mille francs jëlee ko six mille francs yóbbu ko douze mille francs selon la gravité excès de vitesse ligne continue doublé en ligne continue ak yeneen xeeti infraction yooyu nga xam ni mën naa indil nit ñi ya ñu yóbbu ko douze mille wala quinze mille ku ñu ko joxloo ñaari yoon ci sob tukki da ngay wàññi ko ñibbi ndax la nga naroon a yóbbuloo ak sëri ca danga ko danga dana jeex nit ñi ku leen di yar danga leen di yar ci seen yaram wala ci seen alal comme yoon mayewul dóore yi mais koo ci ku teg ñaari contravention yu tegle léegi nit ñi regle te ñu dindi doodaan yi ci yoon wi parce que bari na jëyee yu fi amit doodaan yi ñoo ko indi danga nga doublé fekk doodaan sa kanam soo ko xamul woon nga war a rabaat man am naa ci ay kaaman man ñaar yu ma xam yu ma jege lool te mënoon nañoo rëcc waaye doodaan ba moo këpp oto ya kon fii li ñu war a defar bari na lool ministre bi nag dige na dige yooyu moo fi daan am ba ci accident yu mujj yi bii ci Louga la woon bokkul ak bu luga bi ba ko jiitu woon ak ya nekk ci yoonu Tambacounda defe naa benn ba kafrin la woon ñaata moor te lépp lépp lépp oto bi ak indiscipline chauffeur yi ak apprenti yi amul leneen kon faw nag ñu jóg ko ak ay ay matukaay di sanctionner nit ñi di contrôler oto yi ba pare nag jalonner ay gendarme ay bopp bopp deux kilomètres yu ne xale gendarme yi nekk ci caserne yi ñu génne leen yóbbu leen fa biir dëkk yi ñu génne policiers yi ñu nekk ci biir dëkk yi di contrôler oto yi contrôle yu sévère nag itam nag parce que nit mënula dee di reyale ay nit kuy dee mënoon jël sa oto sax tey ko ci garab tam pii ngay wax parce que yaa def say réewande excès de vitesse ba dugg mais loo def lu dul dem dal ci ay nit di leen rey di leen gaañ loolu wër nañ cee jóg ay jógin wu gaaw nag maanaam fii ñu toll nii ci accident bi fi lay occasion bi nag jot na ministre bi daal di mettre en branle stratégie yi nga xam ni moom la ñu bëgg a tëral pour loolu jeex fii ñaari weer ñetti weer war nañu ko tàmbalee gis muy dox ni mu war a doxee fii ak ñaari weer ñetti weer loolu bu amul bakkanu nit ñi lañuy ñuy tayle rek nit ñi di dee ci caaxaan di damm di yàq seen àddina ci caaxaan te ki ko ko def moom day walbatiku dem tëdd fële jàpp njàmburam ko defee daal kàddu yi lañu ci mun mëntoon bañ a yëkkati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.